du gulet depuis euh, bu ñu euh, amee suñu l'indépendance ba tey mhm. euh, bérébu jàngukaay yi dafa mës nekk béréb boo béréb yoo xam ne espace politique bi dafa mës a am doole mhm. mai 68 boo koy xool li ko sooxe mi ngi tàmbale daanaka si université de Dakar wëlbati ko tudd université Cheikh Anta Diop que sa njëkk faatu si événement yooyu étudiant la te mi ngi bàyyeekoo woon si université de Dakar donc dans tout le monde da euh, bërëbu jàngukaay lu si mel ni jàngukaay yi gën a kawe di université yi dafa mës a nekk véritablement ay environnement partagé avec différentes obédiences politiques kon loolu du gulet Sénégal du lu Sénégal Euh, syndicat d'enseignants yi boo koy xool ñoom Maguette Thiam bu parti de l'indépendance du travail atum ah. 1976 ba ñuy tàmbali di mettre en place le SUDES syndicat googu ëmb jàngale yu nekk si université yi def naa ni yàgg na booy xool euh, parti politique gauche yi yu si hmm. bëri Seydi Mohamed hmm. ñoom ñoo jiite woon syndicat yi doon yëngu si wàllu enseignement bi kon du lu du lu bees dans le milieu scolaire tey ji nii boo ñëwee parti yi yàgg PDS PS euh, euh, ba ci APR ba ci AFP ñoom ñëpp dañoo am bànqaas yoo xam ne dañoo bàyyeekoo nekk ay enseignants nekk ay professeurs te bokk su ñoom donc l' espace scolaire et kii ni ñu koy waxatee euh, universitaire dafa mës a nekk milieu véritablement de fréquentation et de partage des obédiences et uh-huh. politiques mais léegi nag euh, li si bees kañ euh, wala boog tax du ma ne lu bees parce que itam du guleet ñu gis ay élèves yoo xam ne dañuy manifester dañoo teg loxo ñenn si ñoom léegi nag lu ñu lu ñu war a moytu kañ mooy foyer de tension yi di gën a am doole hmm. foyer de tension yi di gën a tas si secteur d' activité yi hmm. te tey boo laalee kër docteur mi ngi bëgg yongu boo laalee milieu scolaire mi ngi bëgg a yëngu avec les élèves yi nga xam ne génn ñu dem déloger seen i ay yeneen i morom hmm. par rapport ak li nga xam ne mooy contestation bi tax dañoo jàpp seen ay morom day ji boo xoolee dans le milieu des enseignants am na syndicats yu commencé di yëngu def débrayage def nangam def nangam parce que am na tam lu ñuy joytu hmm. donc je pense que war nañu mën a jouer à l'apaisement euh, encore une fois comme je le je ne cesse de le répéter le dialogue véritablement dañ ko soxla hmm. Sénégal te dialogue encore une fois du euh, du compromission hmm. dialogue du compromission dialogue c'est pour trouver des points d'achoppement yoo xam ne ku nekk di nga gis ni lii arrangé na ma dina arrangé askan wi àla kuleyal fii leeg ñuy tàbbi ci atum parce que fii ak weer yi gën a jege atum deux mille vingt quatre tension bi di gën a vive. Mm-hmm. tension bi a yokku euh, këru liggéeykaay di gën a yëngu donc il faudra quand même ñu mën a anticiper si loolu par rapport à un apaisement du climat. Mm-hmm. apaisement boobu mu euh, ngi koy woote moom Abdoulaye Mbow Fatou li ko andi mooy tension yi nemmeeku arrestation yi tax tension yi di gën di law ci secteur bu mu mënti doon moo xam ci jàngalekat yi ci élèves yi ba ci sax ak euh, médecins yi yow yëglu. man man dama gëm ne corporatisme boobu ñu ñu bëgg indi. aujourd'hui euh, du du loolu lañu la ñu soxla tey euh, man d'accord euh, d'accord ci ci gis-gis que ne aujourd'hui les syndicats d'enseignants mën nañu am seen protocole d'accord seen gis-gis ci réew mi doyu leen neexu leen ñu tënk ko ci seen protocole d'accord ñu dem ci loo xamante ne waroon nañu ko xaatim kenn xaatimu leen ko ñu génn ñu wàcc ci mbedd mi les médecins ñu def pareil mais su fekkee ne dañu nekk biir hôpital nga gis médecin boo xam te ne hôpital hôpital bu lakk comme la amoon ca Tivaouane ñu yóbbu ñi nga xamante ne ñoom la ñu njottu ne am nañu ci responsabilité mhm. ci kanamu justice ñoom ñu taxaw manifester ba nit ñi nañu bank seen loxo bu ñu liggéey je pense que loolu teguñu ko fenn beneen bi également li nga xam ne moom la ñu gis tey décrété 48 heures de grève tout simplement parce que dañu teg loxo ay jàngalekat yoo xamante ne euh, dañu bokkoon ci manifestation yi loolu également euh, amul benn raison boo xamante ne mën na ko justifier aujourd'hui ki nga xam ne dafa ne taskatu xabaar la wala jàngalekat la te bi muy génn di dem di manifester defu ko ci bërëbu liggéeyukaay bi daf ko def en dehors quand même de l'exercice de son métier kooku mënuñu ko teg loxo après ñu bëgg handicapé xam ne mooy l'institution scolaire tout simplement euh, parce que dañu ko war a bàyyi parce que également euh, foofu la ñu waxuñu euh, ñu am nguur boo xam ne dafay xuppe nguur boo xamante ne dafay jàpp di tëj nguur boo xamante ne dafay xoqatal mais waxuñu également des secteurs d'activité yoo xamante ne dañuy jàpp benn poñ xam ne fii dëgër na muy jàng bi te bu perturbé amaana lu bari dina perturbé wu ñu mooy foofu parce que tout simplement un des leurs a été interpellé mis aux arrêts parce que daf doon manifester foo xamante bokkul ak bërëbu liggéeyukaayam il boo xamante ne da nga koy def après ñu teg la loxo élèves yi ñu jañax leen ñuy dem di génnee seen i ay moroomu ndongo ci loo xam ne mhm. ça n'a rien à avec l'école le Sénégal quand mérite mieux que ñu àddu wax ci leneen euh, soxal xibaar yi ba léegi ak projet bi nga xam ne li ko tax a du lenn lu dul xeex lu jëm ci wàllu violence sexuelle di ab contribution association juriste sénégalaise ñoom nag euh, liñ ci jublu du lenn lu dul sensibiliser vulgariser waaye itam a gaawee euh, mel nag lancé nañu ko ni ki tey lañu ko dalloo tey ci suba euh, daan ko topp itam ba mu law ci région yu ci mel ni Dakar Thiès Kaolack Saint-Louis Diourbel ba ca Tambacounda Union européenne moo ko financé loolooy la ñu xamal moom Adjaratou Aïcha Gningue ak Mamadou Ndoye mu di infraction criminelle sàkku jéggi na dayoo ci sunum réew li ñu yaakaar ni moo ko andi nag du ko euh, moo di mooy que nit ñi ñu ngi gën teg ñu ngi gën a mais noppi bi ak sutural beeg euh, nëpp nëppal bi moo taxoon xam naa duñ koy. ngir xeex te karal ga ñàkk tegi daan defkatu ñaaw ñaawteef yi dañ leen war a boole. ñu ñoo koy gën a jébaane di génne yàqkat yooyu ci nekk si kër yi ak ci dëkk yi dëkkuwaay yi di leen gën a pour que quand ñu bàyyi yàq yi ñu def ak li ñu yàq société bi war xaw Union européenne sóobu na bu baax ci xeex bi jaarale ko ci ab projet te diirub ñaari at. ndaxte lii nga Euh, nuróowul ak leneen parce que ki ñu sàkku mu mu mu métti lool ci saa si bu doon sogom ñu teel ko attee ci balaa muy yàgg pour que buy métit beeg méttitu xol beeg méttitu yaram bi yëpp ànd peut-être jéem a seddandoo ñu jéem ko fajandoo juróomi diiwaan ci réew mi lañu tànn ngir amal fi liggéey bu am sëslaay baral loi bi criminalisé sàkku ak yekkataan xale yi ñu mën koo jëfandikoo mi ngook ajarata si ñu ngi jërëjëf ñu àddu wax ci génnuk ni ki tey ci ngoon syndicat national ëmb liggéeykatu wàllug justice UNTJ ñoom nag lu ñuy ñaawlu ak di ko naxalu bokk na ci tekkaaral gu ñu nemmeeku ci autorité yi ak seen ay revendication boobu ba léegi ñu leen koy laaj France daal di xëddee mu mel ni dañ leen di tànqamlu bu ñu sukkandikoo ci secrétaire général boobu xeew yi de grève bi nga xam ne euh, tàbbi woon nañu ci daan na expiré euh, ci juróom-ñaari fan euh, ci weeruk mars te amul benn résultat moo sabab seenu ko yëglu ñu teewlu ci Fatmata Diop Baba Diaw ginnaaw ñetti fanub grève yu ñu tàmbali te mu ngay wéy ba tey syndicat national des travailleurs yu justice yi di tiire bilan bu mucc ayib. boo demee ci région yu bëri fu mel ni Fatick fu mel ni Kaolack dem Thiès dem Saint-Louis région yooyu yëpp ñu ngi topp grève bi. moo tax fii ci justice de tey gis nañu ne le mouvement est très suivi. amul ay négociation yu sincère bu dox ci diggante ak tutel bi waaye itam nee nañ amul benn ponk boo xamante ne satisfaire nañ ko ci plateforme revendicative bi de. mën naa wax ne benn sotteeku ci ndax lépp ay promesse la rek maanaam dañu dañoo dig rek. comme dañu dañoo dig nag ñun xaar ñu teg. dara suñu loxo. bu dee dara nag antuwul syndicat bi nee na dina wëjal bi ne grève. grève ñetti fan yi bu jeexee lu ñuy évaluer la bu ñu waxtaanee bu ñu amee lu dëgër lu ñu teg suñu loxo ñun dañu koy soumettre à la base ñoom ñu décidé ñun ñu topp leen ci loolu. ginnaw ñaareelu plan d'action bi ñu teg nee nañ dañuy wéyal xeex bi ba ñu ami ay njeexital yu mucc ay yib waaye itam ñu yokk ci ne ñoom laalewuñu jegewuñu li di ab politique. mi ab Ablaye Mbow ak élection yu jub si est-ce que mënuñu jàpp ne front social bi du gën di kon euh, ami jafe-jafe ci bu ñu xamee ne yaa ngi ko doon rappelé sànq euh, secteur bu nekk. wala acteur wu mu mënti doon yaa ngi yëglu. waaw euh, fii léegi ñuy gën di jege élection présidentielle bi ak tension politique bi surtout. ala kuliyal fois de tension yi dafay gën di yokk. Hmm. Euh, surtout dans le dans le monde professionnel. Euh, parce que itam ku si nekk am na loo xam ne yaa ngi koy taxawee si réclamation ñeel sa sa sa sa wàllu liggéey. Hmm. waaye itam bu ñu fàtte ni dafay am toujours ay ramifications mais également ay dégâts collatéraux.